كان شريفنا بإمامه في جدواه شيخ تيجان شريفنا بإمامه في جدواه تمام شيخ تيجان شريفنا بإمامه في جدواه شريف تمام شيخ تيجان شريفنا بإمامه ملا فيه جدوى شيخ الخليفة بابكر سيد المنام لا فيه جدوى شيخ الخليفة بابكر سيد المنام لا فيه جدوى محمد منصور مجدنا وبايم والبايات باي سلمي منصور مجدنا وبايم منصور باي سلمي منصور مجدنا وبايم والبايم mama Abdoul Aziz da baax ne su ko dem defaru si lijaamil da Tuubaa mani man sor mu may si kooku dootu fi gàtt fii da Tuubaa Cheikh Ahmed Tidiane si fi raw fii da Tuubaa Abdoul Aziz mu daw la mag ñi wóolu fii da Tuubaa naan kon akrim bi teeral aajo day faju akrim bi mani ku def nii ci may sa aajo day faju akrim bi ku def nii ci may sa aajo day faju akrim bi mani ku def nii ci may sa aajo day faju akrim bi mani juleen ñu màggal sëñ man ku def nit sa aajo day faju akirim bi man ñu leen lu màggal sëñ Babacar akirim bi Cheikh Tidiane ku bay di nga xamuloo ay ramal xulama ci naxtaawo akirim bi teral Cheikh Tidiane ku bay di nga xamuloo ay ramal xulama waay kooka xamul Cheikh Hadj Abdoulaye Sy Malick nee na kii wax li tubaab bi waawan ñaari doom la lëmu fii dawlatin awarul wallahi kooka xamul Cheikh Hadj Abdoulaye Sy Malick nee na na ngeen ko wax yéen ñi xam na noppi moo di la gën Muhammadul Aliim loolu moom loxoom la newul seen dawla jiitu na tey loo bañ bañ bu fi jug waxal ba xotti ko yaa marul yaa xëttu xol Cheikh Hadj Abdoulaye Sy Malick nee na yow doo jullit doo ku baax doo kenn bàyyiwul lii nga ne yàlla naa dem tuuti. demal may jëyee léegi ni ma ñëpp a ngi fi xanaa ma nuyoo ci buntu kër gu ne rek. aji boo daayalaay. yaa maxsaral jinni wal insi inni rasulullaay. sopp maam bàyyi laay loxo ca wul woote ku yàlla yónni nga woote. ci na jur na buur juruk saaba juruk yonent ñi zaaro من يجعل خلقي ijaanu ahmadan lil fatxi ratqi sopp Cheikh na Cheikh Saad Bou leen ma nii Cheikh ne nee na innal muraada min ijaadu xalqi ijaadu ahmadan lil fatxi ratqi darajay Cheikh Malick bu yee xot bu rabdaan xalifay maam Cheikh Sadou la abee borom ee darajay Cheikh Malick bu yaa xot bu rabdaan xalifay maam Cheikh Sadou la abee borom ee innal muraada man ijaadu xalqi ijaadu ahmadan lil faqi rabbi مولاي لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الرحمن لا إله إلا الله رحيم لا إله إلا الله قدوس لا إله إلا الله جبار لا إله إلا الله كريم لا إله إلا الله غفار لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله te comme yàlla la ñuy waxtaanee moo bëgg bu fekkee mën ngeen ko wala ku ko mën ci yéen rek mu dimbale ñu ci hmm? eh, maa dégg ci làmmeñu alxaaj ibrahim Baye eh, kii Thiam nu mu doonati xanaa yàlla Baba Babacar Thiam daanaka moom la daan ubbee بلده وعليكم من كل خائن سلام إفاق الليل ليالي وعليكم من كل خائن سلام إفاق الليل ليالي إدكار الأحباب بل بل بالي وقروبي تهميل سلب البالي عليكم من كل قائل سلام يوم قلبي كل ليالي نوره أول الوجود وجودا وهو أصل الأصول وعلى البهار بقاء الوالي دام حمل الهادي سهورا هكونا تسعة لم تحسس لها بسقالها وعليكم من كل باب سلام بالله لا إله Merci beaucoup. di baal it àq yëpp di ñaan yal nañu yàlla boole baal santaat yàlla ci may bi mu ñu may ñu daje fi daaw bokk dajewaat fi ren yal na ñu may ci mbaaxam ak yërmandeem ñu dajewaat fi déwén ci waxtu wi su déwén nam ne ñaaw yal dàq ren amiin yaa rabbal alamin te yal na yàlla ommatal ñu boppam waaye ci mbaaxam rek na ak yërmandeem te lépp lu aju ci suñ dund fii ak déwén mu teg ko ci suñu loxo ci wàllu am-am ci wér-gi-yaram yaram ci wér-gi-yaram xol ak ci wér-gi-yaram yi roox yàlla may ñu yëpp déggoo ak kàppoo ak benn ci xol yi ci jëmm yi ci jëfin yi danañu ko yàlla defal ndax daje yu mel nii su amee nañuy profité bari lu ñuy ñaan ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ni ñeen fukki nit ci sama xeet lu ñu daje lu dul am na ci ku yàlla rus koo xam ne lu mu bëgg yàlla def ko lu mu bañ yàlla génn na ci te ñi fi daje ëpp nañ ñeen fukk kon nag ñoom yaakaar ni kookoo gi ci suñu biir niñ koy puusante rek ku nekk na yaakaar ne moromam la loolu mooy tax ñu seetloo yiw waaye bu kenn yaakaar ne rek man la ne kenn ku nekk yaakaar ne kii ci des na suñ ko puusantee rek yàlla séddale ñu ko ñun ñëpp ndax ki ko am ci yërmandeem la ko yàlla di wàllee sant gën nag mooy ñi dagg seen itte ñëw toogal na doon te joxuñ la benn dërëm ñooñu ñoo defar sa xel te ñooñu nag nit ñi dañ leen di faral di fàtte te ki dagg itteem rawati guddi ni mu neexee nga bàyyi sa lal bàyyi sa lépp ñëw wuyi si toog dagg say nelaw bu doon ci tubaab bi sax liggéey yu guddi ak liggéey yu bëccëg bokk ñu fay walla kon nag ki bàyyi léppam ndax yàlla ak yonent bi istajibu lillahi wa li rasuli ida daakum lima yuxyikum yàlla ne na ngeen wuy ci sama woote su fekkee ne lañ leen di woo da ngeen cay jëlee payu yàlla ak luy dundal seen xol te mooy jotaay yii rek kon ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoo ñëw ba teew ak ñi ñëwoon am ngant yeewee ko ak ñi amoon yéene ñëw te ngant dab leen ñu toog ak ñi nga xam ne sax ñu nga toog nag yàlla bu mu dox yàlla nañ séddoo yi fii am ñun ak ñoom waaw ndax daje booy daje booy organiser rek am na ko naan yàlla bu mu réussir sax dafa juum rek bu ko ci kenn topp ndax bu xamoon li nga xam doo ko fi jiitu Serigne Cheikh Tidiane si rahmatullah alayhi wa radiya anhu moo daan wax ne su ma déggee ku naan diw sama noon la mu ne dama tiit mu ne noon amul soppe bu yeggseegul moo fi nekk mu ne ndax nit kenn xam di ko bañ déedéet nit kenn du xam di ko bañ mu ne soppe moo fi nekk moo tax am na baat yu imaam yi tëji ak xaj Omar baat yu ñu war a déglu la baat yu am njëriñ la mooy fokk nit ñi ñu mën a muñ ku mënul muñ li ñuy waxtaanee sax doo ko jëriñoo parce que boo muñul doo jaamu yàlla boo muñul doo jaamu yàlla ñàkk ndax nit ñi mën nañu tooñ genn mën a tooñ gi buñ tooñee nga fayu yàlla génn ci yow ndax fayu moo yombut wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum fa huwa xayrun lissaabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxzan alayhim wala takun fi dayqin mimma yamkurun inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muxsinun gis nga fi mu ko jeexale al ixsaan du doy moo tax ki ñu tooñ bu mënee muñ bañ a fayu moo gën ci moom mën a muñ bañ a fayri nag bokk nag ñàkk pexe ah. déedéet du benn am kattanal fayu mën a fayu kenn doxul sa diggante ndax nga fayu nga baale hmm. waaye dema dema dem ba amatoo pexe dem nga police doxul seeti nga sëriñ bi doxul lu ne dugg nga ca doxul nga ne banaa kook yàlla da nga waaye bawoo kook yàlla kii bàyyeek yàlla day fekk mu mën a fayu am kàttanal fayu te kenn doxul digganteem ak fayu benn mu ne baal naa waaye wala bàyyee nag yàlla te boobu moo dàq ku yàlla fayul nga bëgg waaye ku fayul sa bopp buur am ci yow yoon na ñu bàyyi yépp ci loxo yàlla te àddina lii ñuy waxtaane muy wéetal yàlla xawma ma nu ngeen ko tuddee baat bu difficile la nag man toujours balaa may waxtaan damay laajte baat bi ñuy waxtaan ndax xam nañ ko ndax Sénégal dégguñu wolof ca wolof ak arab ñoo yem làkk bu riche la Cerno Yaxya li rahmatullah alayhi wa radiyallahu ko waxoon mu ne ma xam nga lu tax wolof domine làkk yépp ma ne ko déedéet mu ne ma bindal ma olof lan la ma ne ko alif la laam ak faa mu ne ma calculeel ma ko ma ne ko alif de benn la muy un laam trente la muy trente un faa quatre-vingt la muy cent cent onze mu ne ma bindal ma xot bu ma ne ko xaaf la taa tànk ak baa mu ne ma calculeel ma ko ma ne ko xaaf cent la taa tànk neuf la baa deux la mu ne ma muy ñaata ma ne ko cent onze mu ne ma ni xut bu amee doole ci awliya yi noonu la wolof amee doole ci lakk yi moo tax bu mu dendeel rek suul moo jox leen ci benn preuve sëriñ si nekkoon Sénégal di wax pulaar sëriñ si waxuma ne baaxul de dama leen di jox exemple rek sëriñ si nekkoon Sénégal di wax pulaar ak sëriñ si nekkoon Sénégal dégg pulaar di wax wolof ku ci ëpp taalibe Seydi Hadj Malick moo tax bi mu ñëwee mu ne cocc moo gënoon a dégg pulaar pulaar yi waaye dafa xam ne comme ci biir wolof la nekk bu kenn traduire li may wax nag Cerno Omar wax na fi lool neex na man dégguma tukulóor waaye li wax neex na Cerno Bachir xëcc na sama nopp yi ba tàyyi dama dangaa war a dégg tukulóor sax bu dul dara ndax man bu Bachir ma ne ko waaye nag rek àddinaa tukki ci sama kaw waaye gis nga làkk yi dañuy dominante loolu rek laa ci jublu moo tax arab dafa riche tawxid baatu tawxid bi moo tax léeg-léeg ma dégg wolof yi ko naan nañ waxtaan ci àqi dëkkandoo ma ne la àqi dëkkandoo la ñuy waxtaan wala àqu dëkkaale du benn ah. ñu bari lañ naan àqi dëkkandoo rek te fekk àq dëkkandoo ak àq dëkkaale du benn dëkkandoo benn rek la mooy yàlla bu ñu nee àq dëkkandoo kon ci yàlla lañu war a waxtaan ak nit sa àq bi yàlla am ci yow ak àq bi nga am ci yàlla waaye bu ne àqu dëkkaale nag mooy yow ndey baay frère sœur dëkkandoo dëkkaale yi nga dëkkaale ci koñ bi ak ñi ci biir gox bi ak ñi ci biir quartier quartier bi ba ci biir réew mi loolooy dëkkaale xam nga lu tax mu riche dëkkaale mooy da ngeen dëkk nii rek yéen ñaar léegi nga toxu wala nga dee soo toxoo tàqalikoo ngeen soo dee tàqalikoo ngeen dëkkandoo nag mooy ki nga dëkkal da pet doo tàqalikoo moom dee sax lu tax nga moom kooku kenn la mooy yàlla moom dund yaag moom dee yaag moom bàmmeel yaag moom dekk yaag moom àjjana yaag moom safara yaag moom du tàqali ko benn seconde koo koy yàlla moo tax benn dëkkandoo moo am mooy suñu borom ci loolu lañuy ñuy dugg si nag mooy tawxid moo tax baatu tawxid wolof yi mënuñu ko firi dafa am làkk fu mu moo tax arab riche làkk yëpp arab a ci gën a riche moo tax yàlla jël yonent bi yónni ko ci arab muy làkk ko arab moo gën a riche ci làkk yëpp moo tax yonent bi waxoon ne bëgg leen ma bëgg arab ndax li may arab may may ma bul wéy may ma rek bëgg sama xeet mooy sama njaboot arab dafa dafa riche tawxiid hmm. moo tax sànq bi imaam di wax man lu may bëgg nit di wax ma li ko mooy am na benn baat bu jël échappé na ma ci biir waxtaanam tuuti ma laaj ko dimbale ma imaam baat bi ci biir mooy ci point yi mujj yi bi ngay wax ci déedéet euh, maasallahi li ngay wax ci diggante ci point yu mujj yi la bëgguma la woon dog parce que nit am na élan bu muy jël boo ko dogee rek da ngay dévier waxam waaye waaw kay mooy fi nga doon wax ne rijaalu qawwaamuuna ala nisaa baatu qawwaam lan mooy cosaanu la nit ñi war a luy cosaanu baat bi buñ tëggaatee baat la fan la baat bi jógee qaa'im lan mooy qaa'im nit ñi dañ di moo tax yàlla ne afalaa yatadabbaruuna alquran am ala qulubin aqfaaluha alquran dañ koy settantal Thierno Omar wax na ko léegi dem rek xool yi du tax nga mën a firi alquran fokk nga dem ci dënn góoru yàlla boobu dégg alquran mu firil la ko wa illaa ci kaw ngay firi nii rek mooy indi nga jël sa rek dugg ci biir nit ñi pan rey ñëpp parce que xamoo li ñuy wax wala jël ñëpp suuf safara fekk yaa leen fay jiitu nag ay at nag toog xaar la parce que yàlla soxoru te boo bëggee jël jaamam yëpp dugal safara mu ne la kaay yaa leen bind wolof nee na ku jur yërëm ku jënd sa sakkanam bari na koy jël dara di ko teg ci kaw nit ñi daf leen bindu waaw ci tawxiid yoon ci yàlla noox yegg na ci yàlla ba mu demee bay yàlla bëgg a àll yàlla sëpp xool xam ne ñii bari nañ ci yoon ci yàlla noox mooy yey parce que neuf cent cinquante ans la woote xam nga ñaata nit a ko gëm ah. neuf personnes te neuf personnes yi am na ca ñaar ñu ko weddi nekk biir kër muy soxnaam ak doomam te xamu <laughs> moo tax yàlla yii da koo saf yàlla yii ñuy def yëpp safut yàlla gis nga yàlla mu ngi toog ruqam jàpp njàmburam kenn déggu muy bari soow lu yëngu moo ko kenn déggul yàlla fenn muy soow mu ngi ne bat tey wax na ndax loo fi dégg muy wax rek moom te liy wax yëpp moo bàyyi muy dem xoola yéen ci yàlla noonu fa labisa fi xawmihi ah alfa sannatin illa xamsina aaman neuf cent cinquante ans muy woote benn baat mooy li ñu bëgg a waxtaanee gëm yàlla wéetal yàlla ragal yàlla neuf personnes ko gëm te neuf ya am na ci ñaar ñoo xam ne ñu ngi ci biir këram dañ koo wéet di di ko nëbb muy soxnaam ak doomam waailatu ak kanaan waa waaila mooy ci soxna kanaan mooy doom ba mu demee ba politique bi toj mu ne yàlla inni daawtuhum ñii woo naa leen jihaaran ci xaaju ñu di ma dégg woo naa leen ci suuf ñii daal amuñu benn njëriñ intazarhum soo leen fi bàyyee yudillu ibadaka dañuy réeral ñi ci des rek wala yelidu duñ fi nekk di jurante illa faajiran lu dul ay kàccoor rek la ñuy jur kafaaran ñu lay weddi kon alagal yëpp xoolal tout un ay centaines ay milliers de personnes benn yonent taxaw ne yàlla alagal ñëpp reyal ñëpp yàlla xool ko ba mu yàgg ne ko dinaa def li ma la li nga ma sant ndax maa la yónni waaye boo leen juróon yërëm leen xoola bi ci yonent bi toll mooy li imaam la no bi ci yonent bi tolloo moom te lañ ko def moom noo ceeram sax defuñ ko yonent bi lañ def yonent bi ceeram defuñ ko noo waaye yonent bi ba mu ci tolloo ci ci ci fitna lu ne ñu teg ko sëgg na di julli benn yëfal doxee ko gannaaw jël jël jël tànkam teg ci loosam dëggaat yonent bi sëgg rek diir mu teggi tànkam yonent bi continue julli sëg ma jibril ne ko looy looy defam waaye dafa am ko toll te damay nuyoo lii yëpp ci nuyoo rek la yàlla dafa def nit ñi fokk ñu xàmme fokk ñu xàmme fokk ñu xàmme diine yombul wéetal yàlla yombul waaye lu yomb la lu yomb la waaye lu jafe la ci boo fóotee sa xol ci lu yomb la boo fóotul sa xol lu jafe la mu nekk ci yooyu sëgg na li julli yéefar yi nëbal mbàq gëlëm mbàq xam nga mbàq gëlëm ba nëb ba am ay sax mu ñu bàyyi ko ba sëgg di julli ñu sotti ko ci kaw ak sax yi mbàq nëb bi muy mottali julleem siggi dem sangu waxu dara bi ci mujj ba tax mu buub ay bagaasam dem taayif Seydatuna Fatima moo ko mujj ne ko papa waxal ci lii nag ëpp na waxal ci lii ëpp na mu ne ko bàyyil ma ñaane ndimbal ci samay nijaay ba xam dafa sëgg julli ñu fekk ko fa paanu suuf sotti ko ci kaw ci la ne jóg jot na nag ku am kër ndey am nga kër baay ku am kër baay am nga kër ndey kon naa seeti samay nijaay ñu di ba dama ci taayif diggante ma màkk soriwul xaaj baab dem na fa ba mu ñoom yàkkamti ko yàkkamti ba du dara lu bëgg koo tabaxal te ay nijaayam la doon seeti préparé xale yi yu réew yi ak xaj yu mën yi màtt yi te am doole ak dof yi nga xam ne seen xel neexut jox leen i xeer ne leen bu ngeen koy séen rek mbedd mii lay génnee rek xeer yi dal ñu di ko joli xeer di ko joli xeer di ko joli xeer ba tànk bi leelleeku di nàcc moom moo doon jël loxoom di ay deret ci pour bañ mu laal suuf ndax jibril moo ne cëpp ne ko sa borom nee na sa deret moom ci suuf mooy àddina tukki na mu bañ deret yi laal suuf ndax bëggul bëggul liggéeyam yàqu mu di ko as ko naan benn làbbe moo ko intercepté dugal ko këram fajal ko kon foote teg làbbe yi nañ leen ormal buñ gëmoon liñ gëmit nañ leen ormal parce que am nañ ci ñun àllarba ndax teral nañ suñu yëpp yonent lu mu gàtt gàtt ak bés ca tolloo jibril ne sa borom nee na ñaari montagne seq makk la bëgg nga rek mu boole leen makk te bi jibril di ñëw mu ngi ànd disposition bi ak exécution yépp mu ngi ci loxo yonent bi ree mu ne ko yow asamaan ñëpp a ngi mer malaaka yëpp a ngi xaar sa kàddu rek la ñuy déglu ngay ree ñëpp ngi mer mu ne ko sama borom mi ma yónni bu fekkee jéppiwuma te moom merul rek man meruma seetal ne ko nu sama borom def lay laaj moom mi ma yónni su fekkee meru rek man meru mu ne ko niñ la def ñi xanaa gisoo ko mu ne ko gis na ko waaye wax ko ne na leen jéggal fa innahum laa yaalamuuna ñoom xamuñu te amaat na nii ñu ma def ñoom am ñu jur ñoo xam ne seeni sët lañuy ñuy doon ëllëg ñu ma gëm na bàyyee ba booba ci lay dàq tey ña ko ko defoon mooy ali saw bii gis ñuy ñuy ñu ne ñoo yore royaume d'Arabie Saoudite tey koo dégg ñu ne Ali Saoud rek maama ma defoon loolu yonent bi tey ñoo tuddee seen bopp xaadimul xaramayni sharifayni <laughs> mbindaanu yonent bi tey ñoo ko tuddee seen bopp gardien les deux liens les deux saints ñu koy waxee les deux les deux liens saints ñoo ko tuddee seen bopp tey bu yonent bi ñaanoon ñu àll ko lii du ko ci am résultat bi du ko ci am yoon ci yàlla noox nag bam ca tolloo dafa ne yàlla na ñëpp ëll labalal ñëpp yàlla écrasé àddina bi yëpp mu ci kaaba gi yàlla daf ko écrasé foofu mu ne ko jëlal ci góor ak ci jigéen ñi la gëm dugal ci gaal gi rab yi mu jël góor ak jigéen peer dugal ci gaal gi xese bu gudd la luy am tey ci kaw suuf rek di jiwu rek dugaloon na ko ci gaal gi pendant quarante jours ñii ne trois mois quarante jours àddina bi yëpp di ndox inondation benn ci asamaan ak suuf mën a too xam ne suuf lépp di ndox moom rek moo mucc ak gaalam ak ñawoon ci biir gaalam gaal nga di daw alquran nett li ñu ne mu nga koste dëkk bu ñuy wax juudi juudi mu ngi ci Irak bii tey guerre bi am foofu la gaal nga koste woon ba ndox mi ngi gis ñu wàcc kaaba gi raaf ba maam Ibrahima ñëw yàlla ne ko kaaba gi daanu na mais fondation nga fondation yi ñu nga fa wa is yarfau ibrahimul qawaaidu min albayti wa ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim kon loolu introduction la